asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu baax yéen ñu jóge al ashar ci turu daayir moo xadamatu xidma am na tey daa mel ne ñiñ fi invité benn day mel ne ñaar la waaye benn lañ muy ansaar ak ak ñaari tur la waaye yenn jëmm la kon na bu yàlla dogalee ngeen di taxaw taxawaay bu rafet ci diine ji ci xam-xam bi ci yoon wi taxawaay bu rafet daayira Moukhaddamatoul Khidma ma mu ko baaxoo waxtu nekk muy wan nit ñi ak kuréel yi ni leen liggéey bi ñoo yére ko bokk tax na waxtu nekk ñu leen di ubbil ay bunt yoo xam ne danañ mën a joxe seeni xalaat mën a jàngat mbir mi nekk ba xam ñoom am nañ ci xalaat yu soppi ko ndax nit boo yoree alalam war nay xam lañ koy doxal kon nag ñu ngi leen di ndokkeel ni ñu leen daa ndokkale at yi wees yëpp ngeen fi daa teew teew bu rafet ci koor gi ñi ngeen a def ànd koog ndogu ren jii ñu ngi sant yàlla bu baax nag di nuyoo di jàpp jàppale nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha di nuyu turu Serigne Afia mi nga xam ne mu jiit daayira Moukhaddamatoul ma ak mboolem kilifay daayira bi di leen jot li nuyoo ci mboolem kilifay alasar yi ci bànqaas suut yi kenn ku nekk fa nga doon kilifa ak dara janga nga yellool ñu ngi koy teg seen loxo ngeen tegal ñu ko di leen tafa daalal ci barab bi di ñaan kàddu yu soññee yoo xam ne dana amal ni njariñ daayira Moukhaddamatoul Khidma ak bépp julli bu koy déglu bismillahi rahmaani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñuy déglu di seetaan ñu ngi fi ci juma ju mag di jottali ay kàddu yoo xam ne kàddu yu mbégte la ak kàddu yu ak kàddu yu ceede seede yoo xam ne ñu ngi koy jëmale ci ñëpp waaye di ko jëmale ci Muxaddamatul Xidma te di ci jiital nag kilifa gu baax gi muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa ayadahu llah wa nasara wa atala baqaa mi nga xam ne lépp moom euh, dox la ak bëgg-bëggam ak pasifam waaye di nuyu ak sant ak sargal tamit Cheikh euh, Afia mi nga xam ne al imam mi nga xam ne moom moo nekk ci bopp Moukhaddamatoul Khidma ak mboolem mbokk yeek mboolem jullit yeeg mboolem taalibe yëpp yi nga xam ne ñoo leen di jàppale euh, di leen ndokkeelati ci Cheikh Ramadan Mubarak nga xam ne ñoom euh, dañ ko jël jàppe ko seen mawsim seen tereet boo xam ne ci la ñuy gën a wane liggéey Sëñ Tuubaa waaye nag tànn barab bi nga xam ne mooy barabu Sëñ Tuubaa bi nga xam ne mooy barabam dëgg dëgg dëgg dëgg fi nga xam ne fi lay féeroog boroomam ñu ñëw tànn ko di fi dundal weer koor yi dundal gu am solo goo xam ne ñu ngi koy tàmbalee ci dundal ruu yi ak dogal ruu yi ak ak ak leen ci ay waxtaan ak i ak ak leeral ak i dundal xam-xam yoo xam ne euh, kenn ku nekk ci addu bi yaa koy dégg yaa ngi ci jariñu yaa koy suivre teg ca nag ñu wëlbatikuwaat euh, indi ay bernde yoo xam ne mooy ñam yi ñu jox nit ñi ak ñi wooroon ci bëccëg gi eh, muy jóge fenn fu nekk ñu di def tiraanga yu nekk di ko jox nit ñi kon eh, ñaari jéego yu am solo yi nga xam ne dañ koy gën a fësal ci ramadan bi ñu ngi leen ci gën a sant di leen ci gërëm di wax ne buñ ñu ci woo dañ ciy bég lool te am ci kontaan lool te saa su ne it ñoo ngi ci ànd ñoom te it eh, teral gi ñu ni ci teral muy teral ci asar te bu ñuy wax teral nag moom asar lañ ci jiblu muy El Azhar di mboole daara yi nga xam ne mooy daara Cheikh Mourtada yi te Cheikh Mamour mu Cheikh Mourtada nekk ci bopp bi ak Cheikh Salih mu Cheikh Mourtada ñuy yabal nu fi ñu teew fi ci seen seen digal teew fi ci seen seen seen seen seen seen tur euh, teewal fi daara yëpp di wane daal ne ñoom ànd nañoo si mu xadamul xel ci lépp liggéey li ñuy liggéey sëñ Tuubaa euh, sëñ wax na dana ko wax ci ay waxam dana ko def ci ay jëfam yoo xam ne tegtale na baax a baax ne ànd naag Muxaddamatul Xidma ñun ñi xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi it euh, saa su ne mu ngi ñuy joxoñ ci loolu kon ñu ngi leen di wan ne daal euh, la ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf ci asar ñëpp parce que yéen incha allah taala liggéey bi ñu jàppale leen ci di ci woo mboolem adduna bi nag di woo nga xam ne ñoom la yàlla dimbali ci xam-xam ñu gën cee jàpp woo ñi nga xam ne yàlla dimbali leen ci alal ñu gën cee jàpp ndaxte a defaluñ sëñ Tuubaa lu ëpp solo lii ndax sëñ bil diine la am ak xam-xam waxoon na ne wa lastu raadiya gayra al ilmi wa diini xam-xam ak diine mooy li nga xam ne mooy mbiram amul leneen amul ci leneen soxla kon kooy liggéeyal dëgg-dëgg ci ñaar yu nga liggéeyal kon Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax ndax li nit ñi bëgg bëggoon caa nekk te mënuñu ko yéen leen ca nekkal mu di jumaa jeeg waxtaan yeeg barab yeeg yu am solo yu yëpp nga xam ne yéen a ko di ci def seen temps di ci def seen ñaq di ci def seen alal kon nit ñi war nañ koo xam bu baax a baax ba ba jàppale leen xam ne loolu mooy xidma dëgg dëgg dëgg boo bëggee liggéey sëñ Tuubaa El Hadj nag ci turu sëñ Maamoor turu sëñ Saalix ji ak ñii nu àndal teew fi muy délégation mag a mag a ci ay ñuy jàngale ay directeur rek te ma feggoo ci Cheikh Mahamadou Mourtada mii nga xam ne mooy Cheikh Mourtada moom Cheikh Abdoul Khadim di directeur institut El Hadj bi nekk Guy Mbind ak ñi nga xam ne ñoo nañ àndal ñëpp. Euh, lim bi euh, délégation bi bari na ba xam ne mënuñu su ko lim waaye buñ ko ci tuddee rek moom danañu yóbbaale ñun ñëpp kon daal li am te mooy ne incha allah taala fas yéene ni ànd ak yéen ci lépp loo xam ne yéen a ngi ko yëngal lépp lu ngeen jëm rek incha allah taala Azhar mi ngi ci ànd ak yéen am nañ ci ndigalal kilifa yi ak seenu soññe ak seenu bëgg-bëgg te ñoo it incha allah taala euh, loola rek ci la ñu nekk kon ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal Cheikh Mouhamed Mountakha moom mi xam ne moo fi nekkal Sëñ Tuubaa yàlla dolli ay ndamam dolli wéram dolli fanam yéen tamit yàlla dëgëral leen ba liggéey bu mag bi nga xam ne yéen a ko jël te ñëpp ñëpp bëggoon cee nekk tam nekk ci jafe leen lool kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal ci turu Cheikh Afia mi nga xam ne moom mooy jiitu daayira bi ak ñi nga xam ne ñoom ngeen ko bokkoon yëpp wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa sallam tasliman jërëjëf sëriñ Ahmad jërëjëf kàddu yi rafet na jot na lool ñu jot jottali am nuyoo ci sëriñ Maam Mor Cheikh Mamadou Mourtada ku ne xam na ne sëriñ Maam Mor bàyyi xel gu mu bàyyi xel daayira Moukhaddamatoul Khidma ba am na nay na ci 2012 mu gis ne liggéey bi dafa war a yaatu ba mbokki bi yu nekk ci àll bi yëpp jàpp ci sëriñ Maam tànn ay ndaw wax nañ ànd ak moom ca tournée ba Italie ak Espagne boobu man mii ak Abdoulaye Thierno ñoo àndoon ak moom fu ñu dem mu leeral ñii liggéey bi am ci jumaa ji ak li ci war taxawaay yi ñu ci war a taxaw te gis ngeen léegi rek yéen a ngi fi dajeeg waa Espagne te kon xam nga loolu lépp daloo na ci liggéeyu Cheikh Mamour Cheikh Mourtada ci donn gi mu doon si Mourtada ci tasaare diine ba tax na bari na ñu dugal seen loxo ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ci àll bi sëriñ Mamour Cheikh Mamadou Mourtada moo tax ndax moo bu bunt leeral leen ngir ñu jàpp ci te loolu lee nag ba mu koy def xam ne yëf yi alal ji alal eh, suñu borom la di alal yonent bi sallallahu alayhi wasallam di alal sëriñ Tuubaa te loolu mooy ndonoom kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te ko ak Cheikh saale mi nga xam ne moo dénk moo jiite Alasar ak mboolem kilifa yi leen di jàppale ci bi yëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ci turu daayira Moukhaddamatoul ma